asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki téléspectateur Equivox TV yi maa ngi di nuyu di leen ziar tey nag gis ngeen fi ma toog ci kaw gaal laa toog gaal lii mooy dem géej mooy nappi ay jën lii mooy tax ceebu jën Penda Mbaye bi ngeen di lekk di mën a neex kon ñu ngi jaajëfal lébundoo yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci géej gi di ñu ko nappale di ñu ko ëndil hélas ngir mama mën a toog ceebu jën bu neex te nag waxi noppi di nuyu ñëpp tey nag bu ngeen ñu gisee kon yaakaar naa ne ñu ngi ci dëkku lébu dëkku ñëw benn la mooy Thiaroye sur Mer li tax ñu ñëw fi nag tey kenn ci doomi caaro yi muy rëg-rëg moo xam ne ni tey mbër la di champion ci réew mi waaye itam yàlla def mu dugg ci MMA bi di ci compétir ba yàlla dogal bari ki démb mu amoon ci combat bu metti digganteem ak Alain Ngalani yàlla def mu gañe ko ci gañe bu leer nañ te nag ñëw ci koñam dëkkam fas yéene nag wax ak waa koñ bi ñoom seen doom ji nga xam ne dugg na ci biir sport ñoom nuñ ko gisee luñ koy yokkal ak ban seere lañ ñu mën a jox ci ki nga xam ne moom mooy Omar Kane di Reug moo tax dañuy dem ci biir ci nit ñi rek laaj ba xam ñoom gis-gis bi ban lay doon parce que nag defe naa ne rëg-rëg moom ku koy seet boo ñëwee ci côté géej wala ngay seeti mbokkam daa ko war a gis alam lébu muy nuyu lébu ndooy yëpp waa Bargny géej waa Caaroy hmm, waa Ndaayaan dëkk waa Rufisque du mën a ñàkk waa Yoof ah loolu lépp ci lébu yi ak tefes yi nga xam ne ñoom ñoo war ndakaaru bi ngay dem ba ay tubaab jalaaw ay jandeer dëkk yooyu yëpp ay dëkku lébu El Hadj nga xam ne kon lébu lébu lébu yàgg na am jom de muy loo xam ne ni cosaani réew mi la kon cosaanu réew dañ koy fonk hélas bu la neexee nga ñëw ñu dem tur nan la. Aliou Kane. Aliou Kane. Aliou waaw. Aliou Kane defe naa seen doom di rëg-rëg ku ne gis na fan yi ne dugg na ci MMA ba yàlla def mu doon ci jongante combat bu metti digganteem ak Alain Ngalani Alain Ngalani yàlla def mu gañe ko yen ñi nga xam ne leen ay doomam lu ngeen koy wax. ah xanaa di sant yàlla rek julli ci yorante bi. di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla lafal ko cat yàlla lafal ko cat yàlla ko yàlla def champion yàlla def ko mu doon roi des arènes ñu moom la ñu séenu te yàlla ko yàlla def mm-hmm. waaw. loolu ngeen di séentu ci moom. waaw am na solo. kilifa gi maa ngi lay ziar. Ah, ñu ngi delloo ziar bu baax. Cheikh Tidiane Dia. yow la ma mën wax ci Omar Kane Reug Reug. Ah, li ñu mën a wax bari na mais xanaa tënk ka rek. Mm-hmm. ndax euh, Omar Kane ñun daanaka suñu rakk doon ci ñun. waaye ay papaam ñu ngi nii toog waaye di sant yàlla bu baax di ko ñaanal lii nga xamante ne moom la dëgmal suñu borom defal ko ci ay ndam yu mucc ayib MMA bii nga xam ne ci la nekk nii yàlla na ci dugge bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabil alamin kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax di ñaanal yokk ba yëkk rek incha allah. keroog Sénégal yu bëri dañu xaw na tiit yéen nu ngeen dundee affaire bi mu ci bi bi ngeen déggee ne naan waa ji mu ko seqal dafa mën a xeex dafa am doole. sénégal yi ñu bari mën nañoo tiit mais ñun tiituñu parce que xam nañ ko xam nañ mooy kan xam nañ la nekk ci moom waaw xam nañ mooy kan tiituñu waaw incha allah bu demee moom ci kat nu yàlla euh, day jëm indi ndam li ñëwaat bu neexee yàlla yàlla mooy maye toujours ci moom lañu ñaan incha allah ndam ci kanam rek. ba tey maa ci mbaar mi rek kilifa gi maa ngi lay ziar. wax na ko Zalika. yow nag maillot bi nga sol maillot Real rek nga waroon sol nag affaire bi gën a ne. Ah, non bii mooy sama équipe nag. bii mooy sa équipe waaw ah, bii mooy. changé ko jëlal Real waaw. <laughs> non Real baaxul bii moo baax bii. <laughs> ndax dañu ma noggatu quoi baal ma soxali ko war rek. Ah, waaw yaa macha allah. waaw léegi rek rek loo ñu mën a wax ci moom ak carrière bi mu entamé waat muy carrière MMA. Mhm, macha allah di si kontaan bu baax. si ndam li nu ngeen ko dundee. waaw kontaan bu baax a baax macha allah ñun moom wax dëgg yàlla nit ñooy tiit rek ni ko Cheikh Tidiane waxee rek nit ñoo doon tiit waaye ñun xam nañ li nekk ci moom. Mhm. Euh, malgré lépp coow li dina bari waaye fu mu mujjee rek ndam rek incha allah ndax yaru na baax na joxe na cër li mu war a am dina ko am incha allah waaw ñëpp ñaanal nañ ko nag Sénégal ñëpp la ñuy sant ñëpp wu ñu kenn ndax képp koo Sénégal la doon bëreel. moom Reug Reug kere ci MMA bi noo ko dundee. kontaan ci bu baax a baax loolu laa loolu laa ko dundee quoi kontaan bu baax a baax waaw. kon yow tiitoo kon. non ñu dun tiit moom sérieusement sérieusement ndax ki ñu yor xam nañ ko bu baax ndax suñu doom la te ñoo dëkk amul lenn loo xam te ni mën nañu tiit ci moom. du ngeen soxna si maa lay ziar. maa ngi delloo victoire Reug Reug noo ko mën a loo ko noo ak loo ñu mën wax ci Reug Reug. mais sant yàlla rek. sant yàlla bu baax kontaanate ci Reug Reug ndax daa nekk nit koo xam ne li muy def ni def kaa gëm di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko ci ndax xale boo xam ne bëgg na li muy def jox na ay waajuram respect. ay papaam ñëpp am naa koñ bi ñëpp jàmm baax bay bëgg a dee surtout man mi wax ak yow nag mu nekk ma koo xam ne man ak moom démb leen woon mbër mu ko daa tëggal fi yaay mbapat dafa yàgg a bëgg làmb man dama ko daa tëggal fi yaay làmb miy bëre mbër loo ko tëggal moom tëggal naa ko paquetu biscuit yi mu bëri ko biscuit paquetu biscuit billaahi tëggal naa ko fii mu bëri ko daan saako ceeb yu lii ndaw yi tëggal naa ko fi tamit mu bëri ko ma lay wan ne loolu mu nekk ci moom loolu deret la ci moom billaahi daf koy yàgg a bëgg ci moom wóor na yàlla di ko ñaan yàlla nag yàlla na law ci kaw ca kanam ni koo fekk mii bëri saako mbiske dem ba tey muy bare lii dem ba Europe di bëre ji kon loolu sant yàlla la. lay ziar papa. ah nango ah, di delloo ziar ah alhamdulilahi rabi alamin jërëjëf yàlla sunu borom wax dëgg yàlla de kontaan nañ si yéen waaye tamit doom rëg-rëg wax dëgg yàlla. Euh, ndamal ndamal Sénégal la parce que tey jii boo ko xoolee combat bi Sénégal Cameroun la woon première manche baa ngi nii mais incha allah bu soobee yàlla Sénégal dina dem sa kanam les compétitions internationales la MMA MMA rëg-rëg la comme que dugg na si ndam rek ndam rek ndam la si am incha allah. yow dégg naa yàgg am na ci lu ma fara ci wow ba ñu ne yàgg papaam ay xarit ngeen doon xaw ma yàggu ngénte wala yu mel non ngénte wu ma papaam. mais moom si boppam rëg rëg. waaw rëg rëg ma waaw ñoo ko ngénte. ñoo ko ngénte mais son père on a joué ensemble. maak papaam ñoo doon footballandoo. Castel ak euh, Niayes de Pikine parce que ma man euh, Niayes de Pikine laa daan football man Maturé Kandji laa tudd. Maturé Kandji Maturé Kandji. ñoo daan ñoo doon joué ndoo ba ni ma bàyyee nekk seen entraîneur entraîneur u papaam waaw ba ni nga xamee ba yàlla def li nga xam ne moom la soob mu génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te yéexal kon papaam joueur la woon bu mag ci football. waaw jaagaan ku nekk dégg na ko jaagaan ku nekk dégg na ko ku nekk dégg tamit dégg na ko tamit si làmba ji daana bëri c'est un véritable waaye nag loolu lépp dan kaa doon na mhm. si Baye Modou Kane papa Kane njaati di maamu rëg-rëg mi jur ah, yaayam kon nag rëg-rëg tey jii bu nekkee bu nekkee si stade bi ñu toll nii wax dëgg yàlla duñ def lu du sant yàlla alhamdulilahi rabbi alamin jërëjëf yàlla suñu borom. ma papaam ñoo bokk ndey ak baay papaam ci dundam mu ne ma may naa la ko ci xol bu seddo guy muy débuté mbapat bëgg carte d'identité papaam ma turam yi laa ko booleel moo ko defaral carte d'identité licence am Paa laa ko booleel moo ko defaral. ñun ñëpp nag ñu ànd jàppa ci di ñaan ba yàlla def ka li mu doon tey ñu ci sant yàlla nag bu wér a wér a wér waaw. MMA bi mu dugg nii kera bi muy jongante combat bi nga xam ne ci la génne nit ñu bëri dañ ne woon kii ki mu jël xamu ko yéen ñi ko euh, yéen ñi di ay waajuram nu ngeen dundee mbir moomu kera pression boobu amoon ngeen ci man amoo ci pression man parce que ku ne da ngay wax sa bopp manuma nag Sénégalais yëpp nag comme confiance bi may am moom la ñuy am mais man aw ma ci pression parce que Balla Gaye ba muy bëreeg Yékini ñu ba dañ cee amoon mais waa kër Balla Gaye amuñu ci woon pression parce que champion mooy jëlee champion te pur nga nekk champion foog nga jëlee fi champion. parce que Alain Ngalandou nee naan am na treize combats Reug Reug bu amoon benn sax ñëw pour mu jëlee fi Alain Ngalandou foog mu attaqué koo xam ne dañuy am treize combats pour mën fee jëlee mën a nekk champion. te comme li ko papam mbaykan bi waxee léegi rek foofu laay jaaraat Reug Reug xamaguñu qualité yi nekk ci moom sooy wax nag dañuy yaakaar ne jigéen moo tax wala bokka wala deret li des moom moo ëpp li mu fournir mas naa ko wax ci benn télé bëgguma tudd télé ba mu doon publicité mu éviter ma comme ni man. pel télé suñu mbokk lañ wax. waaw lamin Samba. TFM suñu grand Lamine Samba maa ngi koy nuyu di ko. mu éviter que mooy ba mu daanee doomu Robert bi Mamadi Ndiaye di Ndiaye ñu toog man moom ak rëg-rëg ñu taxaw ci plateau bi di wax ma ne que rëg-rëg li des si moom moo ëpp li mu waneegul te boobaak léegi preuve mu ngi feeñ te ba tey nee naa la des na xale bu tuuti la demagul fenn turam nag moo teel a génn ñëpp yaakaar ne mag la. mais Reug Reug judduwul xale tuuti la. MMA bi yéen yéen a ngi koy seetaan MMA ñu bëri dañ daa bëri ay risque du ci tiit ay risque yooyu ci am ci MMA bi pour ay gaañu gaañu ak yooyu. mais loolu ciy tiit ñooñu ay góor lan moom muy góor góor bu dajeeg góor lan lay tiit ñun ñu ay li bu dëkk caaray géej dem fanaan géej moo gën a moo gën a wóor di dem nekk ci biir ndox mi fanaan moo gën a wóor di kon boo dajeeg sa moromu góor ngay xeex ñu lay fay loolu warul tiit de déedéet déedéet ñu tëj barrage bi non tiit waru ci am bu dee ab li bu dëgg nga laa la xam deret li bu daw ci yow non waroo tiit kooku góor na ngay góor mu yori bët nga yori bët mu yori loxo nga yori loxo ëppale wu la dara noo boo tiitee boo ñëwee fi laa war a tër teg paaka ci sa put kon daal moom na ngeen ko tiit bokkut ci li ngeen xam yéen déggoo li ma la nee naa la sànq nii yàlla ko yàlla defal cet waaw yàlla na ko yàlla defal cet parce que ñun xam nañ suñu doom bu baax qualité yi ne ci moom xam nañ ko ba tax bëgguñoo wax lu bari dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla defal ko gudd fan parce que joxe na cër yaru na respecté na doomu aadama te foo ko fekk day fo xale yi jigéen yëpp ku mu ci fekk da lay dóor ku ko séen muy ñëw da daw moom pour moom fu mu nekk mu ngi ci làmba su entraîné mu ngi ci làmba bu entraîné mu ngi ci làmba xale yu góor yi xale yu jigéen ku mu dajal da lay dóor pour moom chaque jour mu ngi adressé Senghor chaque jour que jëfee bu romboon fii si bu ne lee rëg-rëg ngi da nga naan déedéet xam nga fooy xamee ne rëg moom comme ni nit ñuy xëyee dem def seen i liggéey moom nañ lay xëyee matin au soir dem entraînement du xaar kenn ku la ko wax defal lii man dama des fois dama koy critiquer sax bu teel a ñëw ma ne yow heure bi nga ñëw nag mu ma damaa teel a dem moo waral tax ma teel a ñëw nga xam ne kon kooku ku respecté li muy def la matin au soir su amee combat ak su amul combat day entraîné naturellement deret la ci moom loolu loolu lu mu bëggal boppam la kon loolu ñun dañ ko ciy ñaanal yàlla rek pour yàlla defal ko ci jàmm defal ko ci wér te xam ne vraiment li mu opté non moom moo rêvé nekk mbër kon yàlla dina ci suturaal bu sooba yàlla. gannaaw yow yaa tudd yaa tollu ci tiit. waaw. man damaa tiit kat. ñun di doon yoroo di tiit. fi ragal dëkku fi. barke yonente yàlla Muhammad port laa nekk di liggéey Sénégal plus huit heures lan ma wone ma gagné na ah. ma zibilé def lu ma neex def lu ma saf ñun danoo yor mbër mu ragal noo tol rek ak noo mer rek nañ tëj barrière yi nga xool ñu jigéen ñi sa buñ tëjee barrière yi yokka nañu fit ñun ku dëkku caare bu ànd ak yow wàcce la ñu dëkkul caare bu ngeen ànd ak moom wàcce ñu jigéen ñi ku dëkkul caare boo ñëwee suñu ñu wàcce la ñu jigéen ñi da rëg rëg loolu mooy gi jam nam ndox. kon daal barke yonente yàlla moom it damaa fàtte woon ne sax day bëri damaa jékki-jékki rek sama benn chef bu naan Zarña mu ne ma rëg a gañe mu zibilé ci usine bi amuñu ci tiit ci kooku koo xam ne ne ay magama ay mag ay xaritam ay baayam ay xaritam deful dara hasard lépp fi la ñu fekk lu ñuy tiit ci moom gaañ ñun ñi di wax yow. man su ma romboon benn tarfatal ay ni ma rek amul lu muy wax ak man du ma ko wax ak man ñoo bokk benn kër ñu bokk benn baay deful dara yëg caaxaan kuy caaxaan ak kuy liggéey bokkunu ñu dañoo am lu nu bëgg te dañ koy jëli combat bu jot saa yoo xaw ma seetlu nga ma xaw ma woo ma mais baat bi chaque jour ma wax la ko liñ soxla dañ koy jël si yàlla àndee ñu ñuy dégg fu sori fan déggoon papa kër mbër su Papa Kane Mbër weesoo ñu ne Modou Kane maamam ñu jógee ci Modou Kane maamam ñu ne njaati am naa su ma la waxee doo jum baay bi ma jur mi Jibrin Wadda ñoom maam góor gi Njaay ñoom Papa Kane damay dégg ñu naan Jibrin Wadda rek la moon xarit damay dégg ñu naan daan yu métti yu nu daan woon si caaray Jibrin Wadda leen ka teg waaye yow garaaw xool ma sama kanam dama la see woon daray ragal. Ah, yow mii day ëppoo ma fit nag man bul mënoo maa napp de. garaaw man bu ma jaaree sa kaw nga wàcc. da ngay sóob. billaay nan contact. Ah, nañ contact garaaw dañoo tàmmal contact ba ñun ñëppay dem. yow mii da ngaa yaakaar ba man séeréer laa nag. mais eh, garaaw ñun lébu ñun léppay dem. yi ay séeréer lañu. non non ah, am séeréer yu xof am lébu yu ñime. xanaa nee séeréer bu ragal foo ko gis. mu séeréer dañoo am daw rek <laughs> ñun ñu ñu ñu dëkk ak xam rëg ñun ñun moom ñun tiituñu ñoon combat bi defuñ ko problème sax noo yeewu ñëw ñu ne rëg daanati na ñun loolu la sàlloog moom. loolu ngeen sàlloog boo xoolee jëmam la ci kaw ba suuf yëpp bëre la te dakaa doon na ci ñaar dakaa doon na ci maam ji doon naat ko ci maam jële waaw kon daal la ci mbër. bette bette la. yaw mhm. yow loo Reug man yow yow na dund moom fii ci koñ bi. sonal ñu rek. la dañuy dóor rek. Ah, day leen fayu. <laughs> xam nga moom day fàttaliku. waaw ah, yi ngeen ko daan bi muy xale. voilà. xam naa da nga kon yow xanaa. dañ daa mbaj rek mais léegi. day fàttaliku day ñëw rek dóor dem te doo ci mën dara. waaw. Ah, waru leen di dóor nag. ah te moom buy bëri doon am jàmm bu njëkkoon daanañ tiit mais léegi tiitatuñu ah lu ko yàlla may la comme naka papam daa defee la koy defee hmm. moom day répété rek. Mm-hmm. waxoo lees mën a dégg lii rek nay su ñun ñii waa mbaar mi fekk seen attaay jël kan naan ka dem du ñu jox. ah déedéet nag rek del joxe attaay da kan moom moom dafa nay moom. bu ñëwee doo am problème. en tout cas moom naa ko gérer mais dafa nay. <laughs> yaa ngi wax de. nay na ci ñun moom. gis nga gis nga moom bu bu daa bu daa dem ba pat. bu nee tey teg nañ saakub ceeb. Mm. saakub ceeb bi day ñëw. bu dee bu ne teg na saakub ceeb saakub ceeb bi day ñëw bu gars yi xëccoo drapeau bi sax du toll drapeau ba. moom ceeb ba ceeb ba ceeb ba lay lijjanti ak yooyu ñuy ak yooyu ñuy fondé nu mu tudd sax bu xam sax. yooyu. <laughs> papa maa ngi lay ziar. waaw ah, ñu ngi dolli ziar rek. Babacar Kane. turandoo. <laughs> ah d' accord. maanaam mbokku pa mbokku waaye kan sax de fii moom def fii mooy kaneen defe naa. kaneen de sa waay fii mooy kaneen. yow la bokk papa kan Thiaroye. ah sama mag la sama mag la. sama mag la nga bokk benn baay benn waaw. léegi su ma ñëwee ci seen doom di rëg-rëg mu dugg ci carrière beneen muy bu MMA di ci jongante kere mu jógee ci combat boo xam ne ñëpp dañ ci tiitoon yàlla may ko ci ndam yéen lu ngeen dundee mbir mi. kontaan rek ak xel mu dal ndax rëg-rëg saa yu génnee fii dem du am dara loo xamante ne bi dañ koy tiit si moom. pourquoi parce que moom ñi meñ na entraînement kaay entraînement moo ko gënal kaay lekk. donc ak sport bu mu mënti doon mu dugg si rek sunu xel day dal ndax ñi meñ na entraînement te entraînement mooy lépp boo ko amee rek si sportif ñàkkoo dara te moom ñimañ na entraînement kon nag surtout lépp loo xamante ne mu ngi koy dugg surtout événement bi sunu xel da si dal parce que mën na bëri man na eh, xaw ma sport daal mën na ko xeex bi parce que ñu bari dañoo réeré ne Reug Reug dafa mën a mën la xeex te xeex moom la gën a mën sax kaay bëri te fépp day bari nag foo ko laal rek day na la seedaan yàlla nag yàlla may jàmm bon defal kay ndami ndami ndami ndami ndam ba tey rek ñu ngi biir Thiaroye ah buntu kër Reug Reug kilifa gi maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. ak MMA bi keroog bi mu ci duggee yéen nu ngeen ko dundee ñu bëri dañ si xawoon tiit yéen nu ngeen dundee mbir moom ak victoire bi mu ci jëlee. waaw ñun moom macha allah dañ ciy ànd ak xel mu dal ak xel mu sell ndax xam nañ ki ñu yor moom mooy kan ci lu mën a dugg ci lu nekk amuñ ci luñ ciy tiit. amul luñ ciy delloo gannaaw xanaa di ko ñaanal yàlla mu continuer li nga xam ne moom la tàmbali woon ndax dañ saa su nekk mu ngi suñu xel daal waaw ni muy tàmm ni muy ni mu ciy duggee noonu la ñuy noonu la ciy génnewaatee waaw xel mu dal daal lañ am ak moom waaw ci lu mu mën a dugg lu nekk dañ ciy am xel mu sell xam ne di ciy dugg ak bismillahi rahmaani rahim génn ak génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin waaw sant yàlla rek comme ni ko Babacar waxee léegi nii yaakaar naa lu am solo la te it euh, comme ni mu ko waxee ku gis euh, rëg-rëg ni muy entraîné ak euh, ni muy fonkee boppam ak di def li mu war a def kon yaakaar naa da am xel mu dal rek chaque jour waaw da am xel mu dal chaque jour yaakaar naa gis na ay entraînement am danoon ko suivre des fois ak yu mel nii li muy def lépp mu ngi def li mu war a def te dama dégg benn kilifa gu mag bi wax ne muy Sëriñ Babacar Si muy wax ne ku def leen la sant yakaa la kon mu ngi ci lim war a nekk kon li nga ko dig bu jotee da koy def kon am na solo waaw kon nag loolu moom la lay bàyyi rek xam na ne aussi tamit kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax. ah moom neex nañu torop te ba pare rek ku baax la. ku bëgg ay mbokkam woon na yàlla hmm. su rombee fii bala moo dugg dina ne salaamaaleykum yëg na doomu aadama yi ñëpp la yëg hmm. waaw man a kaf mën a ree mbaa sonalu la sonalu ma moom da ko dëgg yàlla hmm. waaw te yaayam tamit baax bay bëgg a ree bëgg ñëpp teg si su may wax sax damay jooy billaahi. bul jooy yow nag li nga li nga taqe nii boo ci doolee jooy boo jooyee kenn du ko lijjanti yow kay ëpp ngaa jooy. waaw kon nag mbokk yi gis ngeen li ñuy wax rek olof a ko wax buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax li tax mooy li ngeen dégg ñi ko wax ñooy ay papaam ñu daan ànd ak papaam ay magam ay jigéenam ay mbokkam a wax muy rëg-rëg kon nag li ñuy def mooy daal di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di leen wax ne te ñu ngi fi nga xam ne moom mooy Thiaroye sur Mer ñëwoon nag ay mbokki rëg-rëg micro bi ñu wax ñoom seen xalaat ci seen doom ak MMA bi ak combat bi nga xam ne moom la génne digganteem ak Alanga lay demee kon daal li am solo mooy a ah, fu ci waay nekk rek di ab international di defender couleur réew mi ñëw ñu ngi lay soutenir boo ñu gisee ak ñu gisul boo ñu dégg boo ñu déggul parce que Sénégal comme ni ñu koy waxee El benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla dolli jàmm ji fi nekk barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làqu ñu fa yàq yëggul dàqal ñu coronavirus bi waaye di ko ñaan yàlla mu dàqal ñu ko si àddina bi yëpp teg micro bi mukk lu dul danoo ñaanal ki nga xam ne moom moo di Boy Bambara nekkoon un grand champion référence icône lamb yàlla jël ko bërki demb ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana di ko jàllal encore une fois monde lamb yëpp di ko jàll waa Sénégal yëpp hélas di la wax ne nii la demee rek olof njaay a ko wax buñ ne diw baax na ñu ndax mbokk yaa ko wax hélas sag mbaax say mbokk ma ko wax moo tax ma gëm ko may nuyu gomis mi ne ci ginnaaw di la assister di nuyu ki nga xam tamit mooy suñu grand Abou Ndour borom record di nuyu groupe GFM yëpp ndax buñ ne record ne GFM groupe Futur Média waaye di nuyu ki nga xam ne nii nag moom mooy Moussoulaye Couture nekk ca Parcelles Assainies moom moo jaar fii hélas ma koy nuyu doomu ndeyu góor a soog di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy à travers le monde gars beneen yoon rek incha allah ak Babacar ak Equivox TV am nga du mën a ñàkk li ngeen soxla mu am solo lool fii rek ngeen koy mën a amee du doon feneen ba beneen yoon incha allah.